problème bi bi bi Macky Sall am mooy euh, gannaaw ba mu constater la multitude de de de, de candidatures ci biir échange yi ak ci biir volonté am signé loo leen charte dafa am ñoo xam ne euh, voilà ils ont déclaré que euh, ci biir can ñoom ci candidat yi dañoo ne Macky Sall ku mu tànn ñoom dinañ pilier wu mu am ñoo xam ne dañoo posé ay conditions ne kii naan buñ tànnee kii dinaa nangu mais buñ tànnee kii dinaa ma nangu mu am ñoo xam ne sax njort nañu ne bu ñu leen tànnul dañuy bàyyi le parti présidentiel ci sa vécu ak Macky Sall euh, c'est une situation bu muy accepter facilement wala jàpp nga ne euh, il en tirera il en tirera toutes les conséquences man ma fi wax à la place du président Macky Sall xam nga ko mais qu'est-ce qu'il devrait faire alors man lu lu ma mooy que cette question pour moi n'est même pas à pose à se poser mais yow <laughs> mais yow mais mais yow ñun ñu toog ñun ñi ñoo ñooñu lan la ñu ëppale. fit ñoom ñoom ban fit. du fit de <laughs> non non ñun non ñun duñu fit ñun dañu am ligne de gor. wormal président Macky Sall discipliné parti ba pare lu ñu luñ lu ñu ñu xam ni wóolu président Macky Sall pour élection Sénégal du fit man su ñu amoon fit lu ñu def nii man. su dëggool ma la su ma ne woon candidat su ma su ma su. loolu mais nekkoo candidat app bi su jotoon. yow tu as passé tout le mandat de Macky Sall là a à préparer une une candidature ànd dooleel ànd ak Doudou Ka dooleel Macky Sall mouvement Doudou Ka euh, yàlla xam na ne man dama foogoon da ngay. mais tey sax da ngay nekk candidat mais tey sax nañu xaw ma dama ànd ak xaw ma. kenn non balaa balaa ñuy ñëw dama dama la bëgg a wax. ma ne donc xëy na yow da nga ragal. ñoom dañoo ñeme non kay ma man dama. décidé dañu décidé jox suñu kaddu suñu baat président Macky Sall mais man je suis Casamance nga làkkat laa man loolu laa xam lu ma xam mooy ngor président Macky Sall ma koy xool suba may siggi may may Sénégal yi man loolu laa xam lu loolu moo nekk sama deret donc mënuma def leneen. mais nekk kan nekk candidat te appui te appui dama la non non euh, wax ma loolu wax ma loolu wax ma loolu de dama ne. ah si tu choisis d'être pas candidat à l'élection présidentielle ñun yëpp ñoo ne dañuy choisir nekk candidat de Benno Bokk Yaakaar à l'élection présidentielle man su ma man su ma su ma app bi su jotoon wala ma xam ni man euh, am naa euh, euh, taxawaay wala Sénégal jot na app bi jot na si Sénégal du du mën naa demal sama bopp te loolu loolu moom suñu ba borom a xam mais tey nii laa wax tey lu am tey mooy que simplement que tey. ñooñu suñu amoon fit booy wax dañuy génn si gouvernement bi suñu wal wàll wàll suñuy joxe condition fekk ñu génn mais mënoo nekk si biir nit ñu ñoo xam ne amoo dara loo leen ëppale si dara ngi ñoom ñu ne tekk di discipliné di kii président Macky Sall yooyu yo nga nekk fi ci télé di joxe condition si journaux yi di wax ni di wax ni way je vais apprécier mais monsieur vous n'avez pas apprécié. mais yow Mame Boye yow ngay waxal de mais ki mu je vais. non je vais apprécier de la non monsieur vous n'avez pas à donner de conditions. <laughs> ngay dem ngay dem nga ne di dem def campagne si militants yi à la base non monsieur vous n'avez pas à aller faire voir les militants de Doudou Ka les responsables non monsieur vous n'avez pas à le faire. c'est pas c'est pas correct c'est c'est pas c'est c'est pas correct vous n'avez pas à le faire dañu am code de conduite ñëpp ne dañuy ànd ak président Macky Sall ñu ñu ñu dem ànd ak président Macky Sall te ñëpp xam ni président Macky Sall lu mu ñu wax su ma leen soo leen ma toppee soo leen ma dégluwee on va vers la victoire. mais kon xanaa da ngay féliciter Assome qui a eu le courage de rendre de de de de démissionner. de Benno Bokk Yaakaar bi président ne euh, dematul et puis elle est peut-être que yow noonu nga bëggoon ñëpp def non ku moom moom du du félicité dafa dafa dafa euh, def lu ko lu mu lu mu yàgg dafa dëggal lu mu yàgg taxawee rek. comment dafa dëgg lu mu yàgg. non yow da ne gars yi dañoo waroon demal seen bokk démissionné. el bi Macky Sall ne bëggatul moom mu démissionné de Benno Bokk Yaakaar. dëggal boppam. finalement qu'est-ce que. waaw c'est c'est man man franchement vraiment des candidatures comme ça la yow xamante ne c'est juste pour exister. loolu loolu loolu loolu juste pour exister mais faut respecter les les les les gens avec dans leurs ambitions. non non mais je suis d'accord avec ça moom elle se ses ambitions elle fait partie de Benno Bokk Yaakaar le jotagul ma wax si ñooñu parce que on n'est pas encore en campagne électorale. man lu ma xam mooy je reste sur le ma coalition sama groupe grand vraiment yë euh, warmal leen président grand sérieusement ñun suñu suñu toogee ñu ñu ñu leen di seetaan du dara te bu leen foofoog ni nag ay dañu leen dañuy leen di seetaan yi non président Macky Sall la ñuy déglu moo ñu ne ñu bàyyi lépp ñu toog pour ñëpp ànd ñëpp jiboo ñëpp nekk benn mais mais nag man nag fii laa koy wax devant les témoins mm. su président Macky Sall tànnee. Mm. ku muy tànn képp ku muy tànn man. ku mu munta tànn déggu lu ma la wax man Doudou Ka kay jarul wax. xam nga dañuy wax ni Doudou Ka kii la faral wala kii faral ñoom si leen bopp ñoom yëpp kenn ñamewu ma woo mu ne ma jàppale ma kenn si ñoom <laughs> xam nañ ko pa parce que jox ma wonu ma leen kanam boobu. sax dañu ne xaw ma lan waxambaane su ko soo ko yabee si doxalinam. su su bukki yabee waxambaane si doxalin bi la ñoom kenn ñeme si woo mu ne ma kay jàppale ma parce que xam nañu ni man président Macky Sall laay xaar. waaw léegi tu ne man président Macky Sall ku mu munti tànn. Euh, ku mu munti tànn ñeneen ñu nekk si processus nañu xam ni ku si génn mu ne. dafay yàq liggéey boo xam xamante ni c'est liggéey président Macky Sall ah dina dina dinañu atte si Sénégal bi de. c'est-à-dire. Ah, mais mais mais mais Doudou Ka nag yow. c'est quoi ces attitudes. non dinañu atte et antidémocratique. non ah la c'est pas parce que vous avez appartenu au même parti politique. c'est pas parce que euh, Macky Sall moom moo meññ seen politique et institutionnelle. que ces gens de rêver d'être xalif à la place du xalif. ku nekk ambition demal génn balaa président di wax de man du ma wax dara may mun a. mais bu leen neexee duñu génn may mun génn léegi balaa président di désigner candidature nga ne ne man bëggatuma bokk si candidat du ma candidat affaire bëgg bokkatuma si lépp dem saa loolu neex nga dem mais nga xaar ba président bi kii ngay bëgg a yàq ah ñu ñun nag kuy yàq suñu suñu suñu coalition waaye yàq liggéeyu Macky Sall nag. wax sagaduma opposition bi lañu taxaw taxaw temm ak ñoom Sénégal fii fépp muy Casamance muy fii dakaar fépp ñu taxaw tépp temm devant ñoom sagaduma ñu nekkoon ci biir am lépp ci président Macky Sall ñu bëgg a def des choses de traîtrise di déggan ñooñu moom benn duuduka bu ñu gisoon ñu ne xaw ma duuduka xaw ma ñu koy waxee ne ñetti yoon lay taxaw ak ñoom seen kanam. da ngay jàmmarloo ak ñoom Sénégal dinañu àtte de mais même Ndour àtte de parce que liggéey liggéey bi Sénégal duñ ko yàq ñoom parce que dafa am ay valeur yoo xamante ni dañ ko war a sàmm dafa président Macky Sall lu mu leen ji war nañu war nañ ko ko dellu te président lu mu ñu laaj may mun a mais c'est pas difficile may mun a c'est de c'est de s'entendre d'être ensemble mu garantir une mission de périr. De, de, <laughs> si vous ne nous entendez pas, vous allez périr. C'est pour le Sénégal. C'est quoi pour, c'est quoi pour rester au pouvoir simplement pour rester au pouvoir. Le président de la République a dit le Sénégal est au-dessus de nous. Les enjeux qu'il y a aujourd'hui dans la sous les enjeux qu'il y a au Sénégal exigent de nous un dépassement chacun de nous. et ce dépassement là doit doit intervenir d'abord si ñun balaa Sénégalais yi. waa léegi ñu continuer di ñu wóoluwaat. yow yow balaa ngay balaa ngay menacé tey. menacé wu ma kenn menacé wu ma kenn. <laughs> dama ne dama ne politiquement dinañ ma dinañ ma dinañ ma dinañ ma dinañ ma dinañ ma atte yow.